man nami moo faam nga jaar faral fi ma tànc nii yow. man lii laay def damay bàyyi ba gars yi pare ma génn. jékki-jékki rek ah di nuyu euh, sama xarit xaarim taalibe. sa diggante ak Ada sa jot bariwul mais bàyyi ngi lépp ñëwal ko yan relation ngeen am. rek relation bi loolu rek la Serigne Saliou moom la ma bëggee moom laa ko bëggee moom moo ne ma jàpp ma la ngir làmb ngir dara dama laa jàpp te Serigne Saliou tax kii xam na li may wax Serigne bi la ma jàppee ma jàpp ko. pourquoi si euh, mbëri ku jóg nii saa Touba sa diggante la. rab bi sama waate la. ki nga xam ne dara taw ko yàlla suñu borom bi mooy xool lu ko neex def ko ci jàmmam période la rek. daa mel taay xalima ngay baax bi. taay daa mel rawaani wuy si na la. yàlla ak Serigne Touba lépp Serigne Saliou la suñu àdduna lépp Serigne bi la suñu dund ak suñu lépp lu mën a dox ci àdduna rek sëriñ bi la gannaaw yàlla. Modou Lo Boy Niang fan ngeen ci toll ndax combat royal la bu doy waar bu nit ñi di xaar président bi. lañ nekkoon ñu ngi ci lu ko raw ngir yàlla may ñu ndam te duñ tegg suñu tànk incha allah. dégg nga Cheikh Niang. seetaan nga sama dégg naa ko sama xarit la woo na ma téléphone ruube ma nee na ma instant ku bëgg coow yoo lay tudd man a ko waxal lu la neex yow sama xarit nga kooku même bu dul sax yi muy wax nii maa ngi moom lañ seq mooy fu ma ko gis teral ko. ndax sama nit la waaw man fu ma ko gis dinaa ko teral parce que tey àdduna kenn judduut indaale dara te kenn du dee yu baale dara. nee na revanche ngeen di jël si ndax daanoon na la te Modou Lo te Modou Lo daanoon na. moom xanaa revanche su boppam moom Modou ko daanoon. nee na Modou ko daanoon mais yow indi ko. waaw léegi xam nga man maa ngi Modou maa koy indi ñoom ñaar càppaacoli bi la ak xarañ loo Cheikh Niang ci biti lay xaar man ci biti lay xaar ñun ñëpp dañuy taxaw ci ginnaaw saako yi bu arbitre jëndee seen diggante incha allah ñoom moom yàlla na ko yàlla defal mu mu lëng booy ñaa yóbbu ko booy ñaa est-ce que yomb na ndax booy ñaa ci calcul booy ñaa ci xel booy ñaa ci mental boo xam ne macha allah dafa baax est-ce que bëreeg moom yomb na. est-ce que bëreeg Modou yomb na. bëreeg Modou moom yombul ndax Modou ca Modou moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jàppaat. mooy mooy seule personne bu toll nii mu toll ba pare yor poids bi mu por yor ak taille bi mu yor ba pare doon roi des arènes. li ma jaaxal ki daan Modou booy ñaa da ko daan. ñi daan booy ñaa ña leen daan Modou da leen a daan. damaa laaj Papa Sow mu ne ma mu ne ma moo gën a métti ndax mbër bi calcul la te daa ànd xelam. xam nga tey Modou yaakaar naa ñiy seetaan lam yëpp xam nañ ne mbër buy calcul pour mu daan ko du yomb ñiy seetaan lamb xam lamb laa la mbër buy benn benn pour mu daan Modou bu yomb. ma gis Boy Niang ne ko bu bul ngay xeexee nga xam ne xëy na xeex xeexu mbedd ngay xeex. xeexu mbedd ak xeexu làmb ak boxe dafa yam man li ma li ma li ma mën a leer ba leer mooy bu fekkoon ne li ma gis Modou mu def ko ci box ñi ko nit ñi xam ko bu fekkoon ne Modou ak Boy Niang dañ ne woon làmb ji amul bëre box kese la ñu takkal leen gant na ko CNG signé ñu box rek moom Modou. ñeme nga ci teg sa xaalis yow. billaahi Modou xeex ak Boy Niang. billaahi wallaahi taalaahi. Modou ñaata mbër la dóor ñu daanu. dóor mu daanu ak benn xeex bokkul de. dóor mu daanu point la. dóor mu daanu point la mais boo koy xam kay da koy mën. ba xam fi ngay dóor nit ki muy daanu koy loolu koy da xam ko Modou dafa def ci boxe lu bëree bëri ci ci ci préparation combam am lecture de jeu moo bëre ba doon roi des arènes kenn mësu ko présenté Ardo ndax dégg nga ma bëre ba doon roi des arènes la kenn mësu ko présenté Ardo Modou ñu ne mbër maa nga taxaw di xaar Modou ma ngay faju kenn mësu koo def te ñaata mbër la xaar. li ma jaaxal mooy ndox tu bëre bi ne ci Boy Niang. ndax daan newut ci Modou. am na ci Modou waaye man li ci Boy Niang laa lay laaj nga may tontu. waaw moo tax ma na la ndax li ne ci Boy Niang daa néew ci Modou lu ko raw moo ne ci ku dem bañ tuddee xarañ yegg ci loo te gars yi bu paree ci Boy Niang yu yegg ci lool. bu ara ci Boy Niang mu tudd. ñu yegg ci lool xarañ lool. ah dootul de xarañ loo xarañ lool. lool lay doon loolu la gars yi wax. li ma jaaxal Boy Niang bu ñëw ci yow doo ko gis bu kib timis boo ko dàqee bul nelaw. ndax Modou buy ñëw danañ ko gis. waxu ma waxu Modou waxu Boy laa lay wax de. waxu Boy nga may wax man li Boy Niang di indi intéressé moo li Modou di yóbbu moom moo intéressé Boy Niang bàyyiwuma xel lan la war a indil Modou li Modou di yóbbu man Modou laay bàyyi xel Boy Niang jàmbaar la champion la ndaanaan la xam na Modou waaye Modou xam na ko bu baax ndax dégg nga bu mu wax nii. ñu a ci Modou ndax ni mu woon lay takk jaajëf bi yoon. loolu moo dóor ko loolu loolu surprise la bu ñu dugg seen làmb ja rek xam li ñu indi kenn du kenn du dem guerre di yóbbu wane say armes. Modou bi yoon takkul dara. dama ne la. dégg naa bi tey léegi indiwoon sax nangu ko sotteeku. yi kan indiwoon. yi nga indiwoon sax nangu ko sotteeku. ah <laughs> yor ngeen seen i bët de xool di xool leen rek ba xam mu ngi doon sotteeku wala déet du dèjà yéen a ngi gis ma taxal ci mu mukaay bi di ko jox bitel muy sangu di ma ko delloo ngeen gis image yi ah loolu kay garaaw na gars yi di wax rek kenn du fay wax bàyyi jëf ñun dañuy jëf jëf moo ñu indi fi ñu yegg si nii. saa daa mel fi ñu da ngaa ko dugg ci dugg ci làmb ji yaa ngi ci combat bi de. bi ma nekkee ci Ama Baldé bi may préparé Ama Baldé laa doon préparé Boy Niang. loolu tax yomboon na ñaari yoo xam ne ay ponk la. lu jël carte avance. avance ak ak préparation combat bokkul. benn la rek fa ngay dugg fa ngay dugg néeg ba ngay dugg dafa changé yére yére yére ba nga fa changé fa la beneen ba ne. boo ñëwee cappaaccio yi la de. ñun ay lan lañ. xarañ loo. jeex na yaa ko wax. bu ngeen ko jëlee tudd lan. <laughs> lool. <laughs> maa la ragal. <laughs> tey bu la. Modou si. Siteu Balla Gaye. Siteu Balla Gaye coow loolu. waaw coow lamb la ñoom ñaar ñëpp am nañ staff. te am na la may wax rek domaine boo xam ne bëgguma di ci dugg parce que ñoom tey. Balla Gaye champion la Siteu champion la kenn ku ne yaay xool la la arrangé man tuuti naa ci di wax naan Balla Gaye lii la war a def wala Siteu lii la war a def parce que bëgguma wax lu ma nit di xeebee bëgguma tooñ est-ce que yaa ma dégg te ñoom seen jëmmi bopp wax dëgg yàlla toll nañ fi làmb foo xamante ni tey du Sa Touba mooy taxaw naan nii lañ war a def wala daal man dafa am côté bu ma placé wu moo tax moo tax am na lu bëri loo xam ne du sama cër daal mais dama leen ñaanal yàlla rek yàlla defal leen jàmm barki Serigne Saliou coowal Gris Bordeaux bi ko jàngate Gris Bordeaux comme li may wax rek ñun dañuy wax en tant que jullit li ñu xam ci moom mun nañ ko seereel la jullit la ku am diine la ku am lislaam la Gris néew na sax muy wax ci communication te doo dégg mu lay indil ay aaya alxuraan kon ku ragal yàlla la waaye nag damaa bëgg nga xam ne ku ne ci kanam rek dañuy xool tànk mi dëng nit bu lay dàq jotuloo lu mu for sànni la ko bu mu tontu bu mu wax dara na bàyyi lépp ci loxoy yàlla. kon da ko jàppe ay dàq. man dama jàpp ne pexey noonu la pexey saytaane la ak lu mën a xew ci àdduna nit dana juum sax ci loo xamante du jikkoom rawatina nag loo xamante ni ñii neen def na ko ñii ne defu ko te man góob ma ne lu mu def la parce que xam naa ne jullit la te ku ragal yàlla la ku maandu la ku xam lu yàlla santaane la kon du def ñaawteef yooyu. guy gi ne bu jàppee Ada Fass benn simple lay doon. guy gi Ada Fass loolu làmb la joo xam ne yëgaguñ ca ñoom ñaar ñoo war a bëre dañuy ñaanal yàlla bu baax a baax aada. paas yàlla suturaal ko ba mu yegg ci combat beeg jàmm ci kattanu yàlla ak bi yàlla defal ko ci ndam. bu ñu gisee coow leen boole mais du làmb ndax Ada Fass du adversaire am. waaw mbër coow yàgg na fee booleeg mbër nit waaye làmb kenn mënut kenn ko yàlla dimbale moo fi ne bis nga daan koo xamante moo la mën fuuf bis bu set nga gis mbër daan ku ko mën fii ku yàlla dimbale rek moo fi ne kenn mënut kenn nit boo demee bañ jox la avance am nga téye dara jomb ko. comme yaa téye lamb ji Zarko Dieng ko ci àndal. Zarko laa ñaanal yàlla yàlla mu dara tawul yàlla suturaal ko may ko ndam parce que man ak moom démb la. jërëjëf Sall jërëjëf jërëjëf nekk bu baax waaw. <laughs>